Conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, qui nous a demandé de tout faire pour une bonne couverture électrique des événements religieux, il était normal et tout à fait logique que nous soyons à Kaolack, comme nous l'avons fait dans toutes les autres cités religieuses pour s'enquérir des dispositions qui ont été prises par Sénélec pour satisfaire la clientèle correctement pendant cette période de forte affluence. Il n'y a pas de problème exceptionnel parce qu'aujourd'hui, Kaolack sera alimenté à partir de trois sources. Quand je dis Kaolack, c'est Medina Baye, c'est Kanen, c'est Touba et toutes les cités religieuses qui célèbrent le Gamou pendant cette période. Donc nous avons sources d'alimentation et également tout ce qui a été demandé par le comité d'organisation est en train d'être déroulé. Et nous sommes persuadés que nous n'aurons pas de perturbations majeures parce que nous avons pris toutes les dispositions et nous avons également demandé aux guides de prier pour cela. Aujourd'hui, en termes de raccordement, nous demandons juste aux populations, à nos clients d'être un peu plus vigilants parce qu'ils vont utiliser beaucoup d'appareils et également par rapport à ce que nous avons connu durant le Magal, nous avons pris des dispositions supplémentaires. L'appel que je lance, c'est de dire aux clients de Sénélec qu'un agent de Sénélec, quand il fait une intervention, il ne demande pas à être payé. Donc lorsque quelqu'un viendra vous dire, donnez-moi de l'argent pour que je vous dépanne, il faut l'attraper et le mettre à la disposition des forces de sécurité. Les agents de Sénélec sont là pour vous donner des conseils. Ils seront en tenue Sénélec. Ils auront leur badge. Et que les prestataires qui sont agréés également auront des tenues qui permettront de, le, de les identifier correctement. Donc par conséquent, ne tombez pas à la facilité lorsque quelqu'un vous demande de l'argent pour intervenir, refusez. comme ni ñu ko président santé monsieur le ministre de l'énergie également wax ñu ko dañu ñëwoon xool lan def pour que gàmmu gi jaar si nu mu war a mun a jaaree comme at yi yëpp gàmmu Medina Baye moom pratiquement amul problème ndaxte fii courant bi doy na fi bien avant gàmmu gi et également travaux de renforcement renforcement réseau yi ñu def permettre nañu ba nga xam ne ak gan yi ni ñuy bëri bëri bëri Senelec dina ko war a mun a taxawal ndaxte am na ñetti source yoo xam ne fu si nekk buñ fa jëlee courant bi indi ko Medina bàyyi dina ko àttan kon yaakaar naa ne si côté boobu duñu am benn problème léegi nag lenn rek mooy suñu kii préoccupation mooy nañ la ñuy def ba nga xam ne client bu nekk ak appareil yu munta indi këram dina mun a utiliser correct courant bi ba mu doy loolu moo tax nag bu ñu xoolee nuñ daan defee ci yeneen événement yi bi pas dañu indi lu bees lu bees lu ñu indi mooy que ni dañuy def ay équipe yoo xam ne ak comité d'organisation bi dinañ leen teg ci kër personnalité yi nga xam ne ñoom dinañ ko désigner pour que bu ñu amee ay problème ñu mun leen taxawu rapidement def ay intervention yu gaaw muy ci wàllu dépannage muy ci wàllu conseil ci utilisation woyofal bi muy également si beneen question boo xam ne dinañ ko mun a am si wàllu électricité ñooñu dinañ taxaw pour jàppale leen pour def courant bi ba nga xam ne dinañ ko mun a utiliser nu mu waree. jël nañ suñu matuwaay mooy def nañ ay équipe yi si zone yi ba nga xam ne ñoom dinañ mun a jege clients yi ba fu problème amee ñu mun ko régler. di wax rek population bi ne leen ne Senelec moom bu lay dépanner du la laaj xaalis ndaxte fay nañ ko ba pare Senelec moo ko jël en charge képp ku ñëw. ne leen jox ma xaalis ma dépanne la xam leen ne kooku du ne Senelec ñu ngi leen di ñaan ngeen dénoncé ko su ngeen ko mënul jàpp yóbbu ko police léegi daal ñun jël nañ suñu disposition yëpp amu fi képp koo xamante ne nii dina ñëw laaj xaalis pour dépanner ku leen laaj da ngeen bañ